maa dégg ay politiciens yoo xam ne dañu nekk en perte de vitesse naan dañu réinventé Dakar laaj naa leen kan mooy réinventé Dakar xanaa son excellence monsieur le président de la république ànd ak ak monsieur le ministre 3 janvier incha allah balaa midi yëpp leer man nous avons un excellent candidat monsieur le maire de la commune de Yoff monsieur le ministre de la santé. ñu tànn ko nag mu nekk sunu maire ñu gëm ko am yaakaar ci moom l' excellent maire de la commune de Yoff le président Aliou Sall. doon tànn choisir waaye Dakar yaakaar naa le janvier ñu jàkkaarloo gëm yi ñu xool monsieur ministre Abdoulaye Diouf Sarr le grand intellectuel dangaa jàng ku jàngale ñu ministre yar bi ak teggin bi ci yar yàlla jàmm ji ngay woote ñun jàmm ñu bëgg suñu réew jàmm rek lañ soxla tax naa bu jàmm ba yem ñu egsi ci monsieur le ministre cher Mbette Diouf war naa taxaw kuy jàmm Sénégal ba dajeeg Abdoulaye Diouf Sarr taxaw nga monsieur le ministre suñu engagement ci kanamu président ak suñu engagement di dugal na ci nekk nañu xam ne Dakar lépp dëgg la waaye tey jigéen ñi ñu àndaloo toute la coalition wala ne suñu engagement sa ginnaaw bu jàppale la kenn mënu ko estimer ñu dañoo gëm suñu président ñu am bilan boo xam ne bii tey wax défendre dafa yomb fii Dakar mu liggéey fi liggéey bu rëy jàppale jigéen ñi leen yow cœur de son programme de développement jigéen ñëpp gën ko nag ñëpp ko ko. kon nag yaakaar naa ne coow dafa bari rek waaye coow su ma dee ci bi am lu la waaye nag am bilan sa gestion covid 19 fii Sénégal kana kuy sénégalais naw na la ñu def ñu mer wala ñu ay bilan su ma seet mer bi nga ne kii lu tànnee ñu xam kii mooy kan ak lan la def loolu nga waa Ndakaaru laa ko de ko dëkk Ndakaar ñun waa Ndakaar laa ko ñun ñoo lay jàppale loolu day dugal ci ñaari cosaan te buñ ko waxee dëgg la parce que defe naa deux mille dix neuf def présidence laa dafa nekk confirmé na nekk jigéen ñoo ko fal monsieur le ministre xam naa daal jigéen ña lay fal ñoo dugal ci ñaari cosaan ñu ngi coow gannaaw gannaaw man ku ma doon fay ñu ngi doon day baal ñun bu ñu doon ñu baal xam nga doole engrais bu ñu doon ñu baal la ñu am suñu bilan boo xam ne dañ koy teg ñu wax lii la ñu def fii la ñu dugal santé éducation yi la ñu def information yi la ñu def ñu fayal ñu xeex ñu jàng da nga ñu woote def naa bu ñu woote jàng da ngay jël monsieur le ministre si la kon waa Dakar ñii la ñu investir lii nga xam ne dañ amal taxawal dañ dañ dañ nag dañ nag mais waa Sadio Dibra waa Diané ñu ngi président de la République Macky Sall loo ragal loolu tiit ragal ñu kenn ci dara xam loolu ñu jot na Saliou Faye Daaf Saliou Faye Daaf Saliou ki ñu def kàddu gi du ma ci wax dara